jërë ngeen jëf mbokki wasaare làmb wasaare TV ñoo leen nuyu leen siyaar di leen bëgg bu baax a baax su suñu gisee toogaay bi xam ne jàmmaarloo commencé na su ma nee jàmmaarloo nag xel yi dem ci mbër yi su ma nee jàmmaarloo xel yi dem ci amateur yi su ma nee jàmmaarloo xel yi dem ci supporter yi waaye tey nag dama fi andi combat boo xamante ni mën naa ne combat boo xamante ni depuis daaw ci diggante Mamor ak Paul bu Daaru ñoo ngi doon bëri ci combat bi nga xamante ni mooy spécial gàmmu Gueye ak ki nga xamante ni mooy Sokh waaye combat bi nag naa corona bi ñëw pousse ko moo tax tey nag ñu dajalee rek bëgg waxtaanee ci làmb ndax combat bi yàgg na bi metti na gudd na te xam ne ku ne xam ne làmb dafa laaj ay sarax ku xam ne làmb dafa laaj ay ay ay ay yenn affaire yoo a metti ci làmb xanaa ma bàyyi leen ñu bi. di moo dalal ki nga xam ne mooy Paul Bouda maa ngi koy nuyu wax tur ak sant bi. salaamaaleykum. wala caméra salaamaaleykum sama euh, animateur. maa lay hmm. nuyu di la jaar di nuyu techniciens yi di nuyu àdduna yëpp di nuyu waa ëllu làmb yëpp euh, di jaajëfal euh, ci waa fi ma jógee muy waa Daaru Cubu ñu leen di nuyu te di leen jaar bu baax a baax commune bu Plan Jaxaay fàttewuma di leen nuyu euh, man nag tur bi Baba jóob la ñu gën ko xam ci Bécaye waaw Baba Diop ñu leen nuyu di la jaar di la dalal mhm. di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax mhm. mhm. baax léegi hmm. hmm. si waay ñu ngi wax asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi leen di nuyu mbokki Wassare Lamb Wassare TV man la Moussa Kalaam maa fi teew maa moo doon Fass parce que yéen waxtaanee tey wàllu làmb ak sunu waa yu baax yi di nuyu waa Fass Mbao yëpp waaw di leen siyaare di siyaare Mame Mor di siyaare entourage am yëpp ne waaw lépp fi lay xewee ci Wassare Lamb léegi-léegi waaw ah, gis ngeen ba ginnaaw ba nuyoo ba noppi affaire yi xam naa seet waaye xam naa ne ci tàng la jëm léegi. <laughs> mais lan moo waral ngeen jël pour bu daaru. parce que waxtaan naa ceeg maam moom man xaw ma ko pour bu daaru dama doon bañ a année blanche donc tax mu jël ko. Hmm. waaw pour bu daaru moom comme ni la ko Mamour waxee rek pour bu daaru moom bañ a année blanche rek moo tax ñu jël ko mais ñu ne moom du combat ku xool Mamour xool pour bu daaru xam ne te yaakaar naa bu ñu yàlla mayee fekkee ak tal ba yàlla dogal ba lii nekk suñu kanam jeex. Mm-hmm. ba ñu daje dina xam ne lépp dëgg la incha waaw dégg li mu ko na <laughs> xamuñ leen du làmb. Mm-hmm. noonu noo déggee jàngat boobu noonu. waaw macha jàngatam la rek jàngatam la mais laata dara rek laataa ma koy tontu. Mm-hmm. Euh, damay damay jaalewaat euh, Sénégal di jaale waa axlu football bi. Hmm. monde sportive yëpp maa leen di jaalewaat ci euh, héros national bi nga xamante ni moo fi jógee. Hmm. mu di Pape Bouba Diop. Euh, euh, moom saa bu ñu fàttalikoo rek suñu xool day sedd ndaxte jëf ju rafet jëmu fi def. loolu nag yàlla na ko yàlla teeroo aljana. yi ngi koy ñaanal bu baax a baax moo képp ku fa fekk. di di di leen ñaanal saa borom. laax leen fa laax yeegul incha allah. sa nag moom daa baax rek di wax. ndaxte bu dégg naa li mu wax. nee na bañ à la balance moo tax ñu jël combat bi. Mm-hmm. nee na aussi euh, ku xool Paul bu daaru xool Mamor bu Faas xam ne du làmb. Mm-hmm. mais nañu xool ay combat Mamor bu Faas xool ay combat bu Paul bu daaru foofu rek day àtte. Paul du moroomam sax si bëre. Paul ñaata bëre na onze combats. ñaata victoire. huit victoire benn match nul boo bëggee ma limal la palmarès bi. limal premier combat laay deux la bëreel mu daan ko. deuxième combat mu bëreeg Boursine. Boursine ban. Boursine numéro 2. moom moo daan combat boobu. troisième combat mu bëreeg ki nga xamante ni moo di euh, euh, euh, mu bëreeg original daan ko. Mm-hmm. quatrième combat mu bëreeg jàmmalaay daan. cinquième combat Bébé Talla la bëreel daan ko. sixième combat mu bëreeg Dragon daan ko. septième combat mu bëreeg Mamadi Ndiaye daan ko. huitième combat mu bëreeg Fils de Zallo daan ko neuvième combat. mu dégg mu ñël ci Bulldozer numéro 2. moo ko daan. dixième combat mu bëreeg Aïdara daan ko onzième combat mu bëreeg en Ama mm-hmm. ñu match nul loolu mooy palmarès am. kon ku xool euh, euh, palmarès boobu noonu xool palmarès am xam ne ñoo ko gën a riche palmarès fuuf. mais est ñi ma lim ñëpp a wax. Paul musul bëreeg moroomam. billaay walaay taalaay Paul musul bëre ak moroomam. loolu limal. non da lim. a limal lu kii bu limee mënu fi rangale six victoire. six victoire mënu ko mënu ko tegale. na lim. 2013 ba léegi ngeen moom na lim fi nekkee di la limal. lim du ba léegi. maam moom ngeen moom laalu de. te moo koy laaloo suuf. loolu mu ngi suñu ko mais Ama Baldé laay vision mais du ay pôle bu nga dégg fi mbër xeeb mbër ñu daan ko après après nu muy mujjee day dem ci ay voté wala mooy tekki ay gàllaajam di sànni gis nañ ko fi gisati ko fi mbër bëre ba pare tekki ay gàllaajam sànni na bàyyi naa boobu dafa am déception te kii looloo ko nar a dal. maa la wax li nu mel. Paul du ñeexu ñeebe kenn. xam nga yoroo ci keppaaru mbay kay te keppaaru mbay kay bu fa yoroo xam nga ni ndaanaan ngay doon. Mm. waaye su ba ne nekk sa ginnaaw ama ndaw ay buuba fit ñoom doon ragal. Paul xale bu ndaw la. ay Ibra Mbaye bu nekk sa ginnaaw. Paul 2015 lañ. bu nekk sa ginnaaw Mamadou ragal. Paul 2000 lu mu def ji ñoo ngi seetaan jël seen ba digg xam na làmb bu baax bu bëree mu neex bu feccee mu neex bu waxee mu neex bu baaxoo mu neex. amateur yi moom la ñuy xaar. mais <laughs> góor bu daaru. loolu moom loolu moom jàmbaar. mais mais est-ce que xam ngeen est-ce que pour bu daaru da ngeen xawoon ne méngoo est-ce que sutu la tuuti sax. bu daaru bu ma sutu ma na jël na jël lépp. du jour ba ku dàq bëre gën a jàndal ku amateur gën a bëgg ku dàq bëre yàlla na ko yàlla may ndax. amiin yaa rabbi <laughs> wax na ko de. li mu wax nii yàlla na dëgg. barki Seydina Mohamed Mamor Pataala. Mamor te bu jour baa di nga xam ne du njombe moo xam na li may wax nii. non la. Mamor Pataala déggoo ma xanaa. Pataala Mamor Pataala. Paul xale bu ndaw la 2015 la dugg ci làmb ji dafa tegle ay victoire moo ko yóbbu fi mu toll te moom Mamor nii du combat sax jaar jàll la rek. man jaar jàll mais sunu bët jéggi na moom. yéen sama bët moo jéggi management Paul bu Daaru mais Paul bu Daaru yow tuñ tajul ah waaw ma dugg écrit fa mhm. ñu jox ma boyul ma daan ko Pikine dama ko a lii Pikine ah, lii Pikine ah, lii Pikine lii Pikine du jëf soog a nekk Paul mu ngi yeewoo jëf soog a nekk fa la nekk ànd ak ñu baax ànd ñu baax ànd ñu xarañ muy muy muy Modou Boye muy seen président mu di abu Seye Massaer Seedo coach ñu teg ko ci loxo yu wóor sant ñu ko dara lu dul entrainement te Paul day matinalu midi day dem salle ngoon mu dem dune loolu la dëkkee. mais ñu gis ko mhm. euh, bañ ne suba la. Mhm. samedi euh, Fourier ba ak ki nga xamante ni mooy Bébé Diène. Mhm. dimanche ngeen war a sëgg. Mhm. naa bi ñu yàqu. waajaay bi maanaam daanaka pare woon ngeen. Mhm. est-ce que fi parce que su ma juumul bu bu saison ci ñi njëkk ci ngeen di bokk. incha allah waaw est-ce que fi mu toll seen i mbër est-ce que fi mu pare nañ. gis nga ki nga xamante ni deful lu dul làmb muy métier kooku boo ko fëggee minuit sax day jóg bëre te Paul loolu la dëkkee Paul su ma juumul euh, mi ngi tombe woon ak le 14 ñu amoon suñu benn point muy bëre ñu dem Esat Esat la ñu yógee nouvelle bi ne président arrêté na bépp xew-xew. waaw mu nekk lu ñu naxarlu waaye tamit mu nekk lu ñu muñ. ndaxte yaakaar naa ne nekkul làmb rek lañ arrêté bépp xew-xew lañu arrêté woon euh, euh, ci boobu nag ba léegi nii Paul ci ay entraînement am la nekk Paul ci ay ay loxoom yu wóor la nekk di teel a tëdd di teel a yeew di liggéey kon pare nañoo parewuñu moom loolu moom yaakaar naa ne sax wax ju yàqu la parce que pour chaque instant mi ngi say entraînement am li mu war a def li muy def yëpp mi ngi koy def li mu war a def yëpp mi ngi koy def kon kooku yaakaar naa ne pare nga ak parewul moom euh, euh, loolu da koy laaj sa waay ba xam waaw. <laughs> maam moo ngi laaj ba xam pare na wala. maa ngi koy cuqal léegi a ngi waaj mu naan ma waaw xam nga ne waaj kuy waaj moom pareegoo <laughs> kuy waaj moom pareegoo nañu waxante dëgg maanaam pare na bu yàgg pare na dem tey soo ko ñëw. mais waxtaan bi xamaguñ ko. ci kanam lañ koy xam. nee naa la suñu bët ci ki nga teg du góor bu daaru. Modou Lo ak Ama Baldé mi bëre dañuy xaar. trois des années dañ teg suñu bët waa mais dañ góor bu daaru. mais wàccaari bi wàccaari bi métti na ndax ngeen waajal bañ ne suba la. waaw làmb ji yàqu ngeen commencé à zéro te xamaguñ ne kañ ngeen bëre. nu ngeen di dundee loolu. waaw loolu métti na dëgg la ndax mbër moom mhm. xam nañ préparation combat mbër dafa métti surtout mbër yu ndaw yi mbër yu mag yi sax seen combat dafa métti asamaan mbër bu ndaw yi nga xamante ne amul jàppale amul jàppale xam nga mais loolu lu xam nga gaa yi ci jàpp ki def fukk ki def sax amul ko noonu la demee mais loolu lépp tamit xam nga dinañ ko gérer ndax xam nga a xam nga demul tamit gaa yi bàyyi ko ndax a baax bi yëpp ci ginnaawam xam nga mbër yi ci ginnaawam di ko jàppale xam nga ak ñi nga xamante ni man la suñu toj sax mais du arène bi nii arène bi xamaguñ ko de. après baal foofu fi dara. dafagul dara. te si kii lay tàmbalee. nee <laughs> naa la 2013 ba léegi sama ngeen laalu suuf. mais est-ce moo xamante ni nii maanaam xamu leen ko ci làmb wala boo euh, tegu leen ko seen bët est-ce du xaw a nekk tuuti risque tamit. non non loolu du risque ci Fass waaw nekkul loolu du risque si mburu Fass mën na nekk nag risque si keneen quoi. Mhm. mais mburu Fass. tuuju mhm. Fass sax bu taxawee building sax bu ko jàppee Maam Mor ko daax bëre mu loolu wax ju yaaxu la loolu gis nga lool wax ju yaaxu la xam nga ah sa waay xamul Paul parce que boo bu ko xamul Paul bu xamu bu xamoon bu xamoon li muy wax nii du ko wax waaw waaw waaw bu la neexee nga ne xamoo bu la neexee mais Mamor bu tëddee xelam mi ngi ci pôle Mamor buy nelaw mi ngi nelawaale pôle bu yeewoo mi ngi yeewaale pôle buy dox mi ngi doxaale pôle ndaxte xam na ne am na avance boo xamante ne du ko yekkale fen te ku mu ko yekkal du ko jël muy xale boobu noonu naan pôle bu daaru ki toj xam nga Kaarang toj Touba toj Jofiyor toj Jonwaar bëri na fu ne te xale bu ndaw la ñu koy coow mu am public buy mobiliser dix cars ñooy génnee daaru cubu ñëw arène nationale car te boo weddee li ma lay wax nii ñëwal nga def reportage nga xool foofu dix dix car. ñooy génne ñëwal seet si ko nga xool nga gisal sa bopp li koy topp dix car. loolu bu ko boo ko waxee boo ko waxee da wax lu la neex parce que léegi-léegi nga fi wax ne léegi-léegi non léegi-léegi la fi wax ni mbër bu amul jàppale amul si bopp ñun danoo am ñu ñuy jàppale président Mara bu nekk suñu ginnaaw ñun Mara bu moo nekk suñu ginnaaw di ñu jàppale dooleeg doole waaw di ci def lépp lu mu war day yëkkati xaalis bu bëri dem sama loxo bi la koy teg billaay wallaay wa taalaay sama loxo bi la koy teg ñu siy def li si war kon kooku noonu kon kooku noonu waaw ba tey ba tey ba Mamor duñ jombe Mamor def fi dara du njombe maam Mor du njombe Mor du njombe Paul bu daaru du Boysil Paul laa lay wax ne de Paul laa lay tegal nii de nga naan ma ay Zil Balde ñooñu noonu ñooñu xoolal ñooñu ñi indi gis nga Ama Balde Ama Balde man du ma wax sax ay wax jàmbur mais Ama Balde ñooñu ñëpp si pindo bi la ñuy yem bëre wàllu teel la ku ñëw si pindo ba ngay yem ñooñu ñii yow xa yëpp ñun ñaar ñii ñuy wax nii ñun ñaar ñuy wax nii sax si pind bi la ñuy yem Mamor la ak Ama Balde mais ku ne xam na sa mbër te bu nu jàppantee dina xam ne lépp dëgg la. <laughs> waaw bu la neexee nga ne tojul. mais ñoom a jaaxal mooy. Mhm. ñoom dañ laa xaw a umpale. Mhm. xamuñu kuy pool. Mhm. man loolu xaw na ma cee jaaxal di bëgg mbër te xamuloo xamuloo ko xamuloo moom mooy kan man loolu xaw na ma ñun ñun xamuñu Mame Mor nan waxante dëgg rek ñun tam ñun lijjantiwuñ ñun ñun lijjantiwuñ Mame ñun lijjantiwuñ Mame Mor Paul bu daaru ma ne indil ma ay combat nga indi bu fekkee yaay ak moom gis bu fekkee yaay ak moom indil ay combat Paul bu daaru teg indi ay combat euh, Mame Mor bu faas nga teg nga nga nga xool nga xool loolu rek la. Adama Kaagu. ne leen dem xooli entraînement ñaari mbër yi te dellusiwaat léegi léegi. dem nañ ba ñëw seetaani entraînement ki nga xamante mooy Mamor dem nañ seetaani entraînement ki nga xamante mooy Paul bu daal noo gisee entraînement Mamor bu Fass état de forme bi. non Mamor sa ndaanaan la ndaanaan la gis nañ ko mu ngi liggéey mais lu mu waaj nag doyul lu mu waaj doyul ndaxte combat benn toolu dëgg la boo Paul mun nga ko gis nii si jëmm. Mm-hmm. xeeb ko mais ay boo xamoon la ca biir. boo xamoon la ca biir rek loo waaj da nga koy xeeb. waaw maa la wax lii parce que Paul li muy liggéey lu ëpp diin la te du du du laal benn anabolisant. fii ma ah man de xaw ma damaa wax rek <laughs> du laal benn anabolisant formam naturel la yor te lu mu liggéey si suuf la ko liggéeyee wallaahi lazim lu leer laa lay tegal nii. maamoo lu mu waaj rek doyul. waaw Paul daal la waaw mu ngi liggéey de. Mm. liggéey na nga ko liggéey. nga mm. xam ni moom. waaw loolu liggéey dayal liggéey loo mën. yokk doole ji ngeen xeeb ngeen loolu. lu yokk doole dayal. moom ba Mamadou moom. faral di dem tey soo ñëw. doo bi foofu. Mamadou dañ koy bëreloo mu xoox soo kaa daan. non dañ koy bëreloo mu sonn soo kaa daan. gis bu bëree day daanu bu xeexee day laanu. bu dee yëngal bu dee bu dee yëngal ñoo yëngal. bu dee bu dee mobiliser ñooy mobiliser bu dee bëre ñooy bëre bu dee xeex ñooy xeex. waaye yow doo ma bàyyi yow baay ma loolu ay loolu ay waxi supporter la rek loolu ay loolu ay waxi supporter la rek. kadaa kadaa sax bëggul woon combat bi. leer laa leen tegal nii jëm nañ woo nañu xoolal woo nañu naan ma sama booy ngay bëree nii ak nii nan man maa lay wax lii waaw Kara si boppam ah woo na ne ko sama xam na xam na Paul sama booy ngay bëree nii ak nii ak nii mais Paul ne ko combat rek bu jeexee jeex naa ñu parce que ñooy mayante xaalis quoi xam nga bu nekkee fii nii ma ko sama copain ngay bëreel affaire yooyu noonu rek loolu day sooxel làmb ak làmb état bu mu toll nii mm-hmm. corona bi ñëw xam nga dal ci kawam loolu day loolu day day sooxeel daal ah, ah, amateurs yi xaw a reculer nii sponsors yi ñoom tamit téye seen loxo noonu kon ñun ñoo ñun waa axlu làmb yi ñu nekk si làmb mm-hmm. ñoo war a bay suñu waar xam nga jëlee ko fi mu nekk nii yóbbu ko fu kawe loolu lañ de la war a def nii loolu moo waral suñu combat ak Mamor ay adversaire lañ nii rek pour benn trente minutes nii rek bu ñu paree nag après xam yaa mu gën a xam. Mhm. dëgg la non boo déggee ma ne trente minutes bi maanaam ëpp na trente minutes sax jour combat bi la rek quoi mais combat mën na sax bañ a yegg foofu noonu. non combat bi moom boo bëree da ngay daanu boo xeexee da ngay daanu gisuma loola teree laa suuf. Mamor Mamor bu bëree daanu bu xeexee daanu xam nga la am si bis bi. xam nga la am si bis bi. Oh. ñëw ñëw ñëw la am si bis bi ñëw. ñëw teew daal te bu ñëwul dañ koy jëli. ñëw la am si combat bi te bu ñëwul sax dañ koy jëli indi ko. lu leen laa tegal nii. non si wul sax bilaay walaay si wul sax. si wul sax Mamor. <laughs> daaru cubb. ñooy waa daaru cubb ñun. lu ngeen si bëgg ñoo leen ko gën a bëgg. Mhm. combat bi dañ see xam pare sonn ci. ànd seen mbër fu ne. Mhm. dugub fu dem fu ne nag ba combat bi demee nii loolu nag loolu suñu borom la mais <laughs> loolu lépp xam nga teewul tamit bàyyiwul boobu léegi ñoo ngi defar ñoo ngi métier. kon yaakaar naa kon yaakaar naa xew xeebatoo la dugg saal ñoo de. tax. su ma juumul dundoon ngeen ay billets. Mhm. Mhm. daanaka ba waajoon ku war a dem stade. Mhm. combat bi yàqu. ngeen war a waajaat dem stade lu ngeen wax ñi nga xamante ne ñooy autorités yi nga xamante ne ñoo leen seetaan te dëkk ak yéen ak ñi leen di jàppale. waaw loolu moom li ñu ciy wax moom mooy ñu ci daan woo rek. di leen woo ñu gën seen jàpp parce que mbër moom fii ku ñeme dañ naa dee. te Fass Mbao dañoo war a jàppale lu bëri. jàppale leen di leen dooleel. xam parce que gars yi seen loxo tamit jotul seen ginnaaw bëgg nañ tamit Fass du hmm. Mamor Mamor moo gën a tuuti Fass Mbar moo gën a nekk mbër yi gën a ndaw Fass Mbar ba xamal la ko hmm. mu ngi ci ginnaaw Ousseyn Bane mu ngi ci ginnaaw Amandal mu ngi ci ginnaaw ay champion yoo xamante ne champion bu ko fi ku ko déggul. ku ko xamul dégg nga ko. Eh, bu fi daa xewi bu fi daa xewi wax ah, nga kenn bu fi daa xewi waay. bu day xaar ah, bu day xaar. amateur yi ko bëgg. Ah, bu fi da nga ko xamante ni nii mel su mbaay. naka wutoo la xaftaan la. day xaar boobu day xaar sax. boobu instant daa nekk suñu xom di laqatu nañ ko doon goro sax. mu ngi laaj goro sax nañ ko doon goro sax. waaw mais kii lu ko daal goro sax <laughs> kii day xaru de <laughs> day xaru de. day xaru de. ah Goro Sock. Goro Sock na ñëw. bu fi da ngay xaar Goro Sock. au passage du li ngay wax lu bari. man maa ngi woon ci. nga xamante ne ñu a jàppale. Kourou Sow comme ni nga waroon defee jàppale leen waa Fass Mbao jàppale leen lu bëri. Baba Ndiaye yéen nga xamante ne nii yéenay jàppale Mamour di jàppale Fass. ngir jëm Rasulullah ñu gën a yokk seen xam nga gën leen jàppale daal parce que xam nga bëgg nañ Mm-hmm. Mamadou bëgg na Mamadou bu ko xam xam ne Mamadou bañkat la yor na débuté di daan dooleem di dimbali yaayam jéelaani mu ngi koy jàppale magam nekk borom fas mbaa foifi ne naan bu wootee mu rafet bu animé mu rafet jéelaani mm-hmm. ñoom ñëpp ñoo ngi jàpp seexu yàlla yi ñu ngi jàpp doyul waa fas mbaaw alaaji mbay maam ñas yéen ma fi yàlla dëgër bi alaaji mbay lu ngeen jàpp ci Mamadou mm-hmm. gën a xam nga boole xol doon benn xam nga ñu jàppale leen Baba Ndiaye Maodo Ba waa dooleel leen Mamor xam nga xam ni Mamor doomu Faas la te ku bëgg Faas Mbaaw la te bërëm fi mu ko teg du pôle daa pôle bu daaru pôle bu daaru dafa Faas Mbaaw jàppale leen Mamor nga xam ne Mamor la ko tax a jóg du pôle bu daaru nekk roi des arènes Faas Mbaaw dañoo war a roi des arènes mhm. Fass Mbao fa la Mbaye Gueye Tigre Fass di yeewoo ñun fa la ñuy yeewoo Mamor fa la yeewoo Mamor lu mu xam si bëre Mbaye Gueye Tigre Fass ba ko xamal kon kooku du cuune kooku du bojo bojo te pôle bu dem nga client boobu yàq loolu ni ñoo la jàppale te jàppale dem ba tollu fii. ngeen war a waajal xam ne saison moom léegi mu loolu moom ku ne xam na ne lu metti la quoi parce que boo xoolee sax am na ñoo xamante ni jotoon nañoo jënd seen billet. te affaire bi jaam ak pexem daal yàlla ak dogalam kon ñooñu dañ leen di woowaat rek ñu fàtte loolu ñu xam ne leneen lañ ñu ngi jëm ci leneen ci lu bees tax ñu ñëwaat comme ni ñu jëndee woon billet ñu ñëwaat jëndaat noonu en masse jëndee ko nu ko nu ko du ko raw euh, di ci woon nag ku nga xamante ni kenn la si ñun nga xamante ni tey fépp fu Paul egg mm, yàlla mën naa ne yàlla ak moom la mu di président bay sunu waar mm, muy euh, Mara Thioub kooku kenn la si ñun ku spécial la fu nu war a dem fu nu war a dem daf jox otoom jox ñu gasoil jox ñu jox ñu xaalis nañu dem leen kon kooku noonu amuñu fayam quoi day combat day jot mu jënd lu mat trois bolo bi maye ko euh, de combat day jot mu defar lu ay tiset yu bëri sama loxo bii la koy teg billaay wala taalaay sama loxo man maay séddale kon kooku noonu amuñu fayam ñu ngi koy woowaat nag ci combat bi ni mu ci jàppee woon bii passé nii te mu échec mu jàppee ko nu ko xamante ne nu ko nu ko ko ëpp doole parce que xam naa ne am na ko te mën na ko euh, kon ñu ngi ko si woo bu baax a baax di woo tamit euh, Abdoul yi moom kuy jàppale si combat bi si sonn la ñu koy woo mu jàppaat ni mu jàppee woon mu jàppaat ko raw Ndak Mbay fàttewuñu di la woo di woo Sibéeru Jaxate ñu ngi koy woo Assane Diallo euh, Buubu baax képp su ma limee daal mën naa ne sax du ma dajal du ma dajal ñi si jàpp bari nañ trop euh, kon ñu ngi leen si woowaat bu baax a baax ngeen jàpp population bu daaru cub yëpp ñu ngi leen di waat si comment parce que euh, ñun pour la ñu am ñun boo gisee ma mobilisation bu rëy boobu noonu hmm. dëkk bi pour benn mbër la am ñi si doon ñi doon bëri ñëpp bàyyi na ñu ngi ci ginnaaw booy bi. ñi ñi doon bëri. <laughs> ñu ngi ci ginnaaw booy bi di ko dooleel kon kooku noonu du yomb muy def ay affaire yu cuune ñu ci si am di ko dooleel loolu moo tax mu muy mobiliser lu rëy rëy loolu moo tax bu jógee rek ñépp jox kon Paul mbëru gox la mbëru commune la te commune 4C bi plan Jaxaay Ñaaxorop Tivaouane Peulh Jaxaay. kon commune laa la wax ñoo ñoo ñoo ñoo ànd ak Paul commune billaay walaay taalaay commune ñooy ànd ñi ngi ci am di ko dooleel waa Kër ma Massar tamit mention spéciale ñoom tamit ñu ngi ci ay mu ngi ci ay loxoom ñu yooy tàggat tàggat bu am doole ñi ma la limal nii du booy Massaer abu Sey Seedo ak waa écurie bi yëpp gis nañu ni ñu taxawoo pool baax a baax ñu ngi leen ciy wowaat bu baax a baax ngeen jàpp ci di woo nag euh, sunu yaay Ndey Seck Ami Seck ñu fàttewuñ ci ñu leen woo di leen wax ne daal euh, euh, combat bi seen combat la nee na dañ koo bëgg mais ñun romb nañ bëgg romb nañ bë bëgg combat bi fi ñu toll nii suñu xool ci combat bi yàlla rek moo xam yàlla moo xam yàlla nag mi maye ñu ngi koy ñaan suñu borom mu may ñu ndam lu sedd guy ci kaw Mamor bu Faas bu nu jàppee bés combat bi incha allah. Hmm. waaw wasaare lamb wasaare TV rek xam nga lu bii nii tamit quoi dafa nice quoi. Hmm. lii moom lu rafet la xam di ñaan waa wasaare làmb yegg ca kaw a kaw a kaw wasaare fépp te pël bu daanu dama koy wasaare. Mhm. wasaare wasaare dama koy wasaare dama koy daan wasaare fépp waa wasaare wasaare Logo TV di santaat di gërëm Mamor moom mi nga xamante ni xam moom tamit xool lépp nit ñi bari na lool xam nga taamu ma jël ma ne ma xam kaay dem am amaana waaw doyloo ma si benn côté luñ si wax tamit loo xamante ni dëgg la tamit suñu yëngu bu jiwee suñu borom la di woo. waa fas Mbao ngeen jàppale Mame Mor Omar Bambara Omar Ndour Baba Ndiaye Alaaji Mbaye Mame Niass Ablaye Mbaye Demba El Capo Kaaw Bandi Bandi Mané Grand Mou jàppale leen Mame Mor lu ngeen ko jàppale doyoo Fuudu Saw jàppale ci Mame Mor bu baax seexu yàlla yi jëlaani borom Fass Mbao nee naa la lu mu mbotul mm-hmm. rafetul déedéet moom. moo waroon moo waroon ko sama waa ji Adama. nee la Adama mu leer bañ. ñoom ku ci bëgg lu rafet ku ci bëgg bu rafet. ñëwal ci Jeylaani Fass Mbaye coiffure mu war la lu rëy lu amul fenn incha allah rabi di woo Fass Mbaye bi yëpp nag ñu jàppale seen doom xam jàppale Fass Mbaye bi yëpp waaw yàlla defal ñëpp jàmm barke Serigne Bamba. ma bàyyi la nga tàggatoo waat. mu waaw waaw comme ni ko waxee rek. waaw ñi ngi kontaan bu baax a baax ci plateau bi nii. nga xamante ne mën naa ne c'est une première quoi. Euh, en jàmmaarloo entre entre fans. lii dafa neex mi lii boo xoolee gisaguma ko fu bari wala bu fekkee am na tamit. waaw waaw kon waa wasaare. ñu leen di ñaanal seen i mbir wasaaroo fépp ci àdduna bi. fépp ci àdduna bi li ngeen ci bëgg ci liggéey bi nii yal na leen ko saa borom defaral lu kawe njort. di la gërëm yow ci invitation di gërëm sama waa ji bu baax a baax. Euh, nga xamante ni moom laa bokkal plateau bi di boo gërëm tamit techniciens yi nga xamante ni lépp lu fi rafet. ñoom la. kon te kenn du dégg seen kàddu kenn du leen dégg ci lenn kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax baax amuñu seen fay waaw di woowaat bu baax a baax nag jéngumaanu pool bi jéngumaan yu pool bi ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu ñooy pool gis nga jéngumaanu pool yi ñoo ñooy pool ñoo ñoo nekk si ginnaaw pool pool bu soxlaa yére ñoom la bu soxlaa daal ñoom la bu soxlaa lu lépp lu mu soxla sonul si dara sonoluñ ko su moom it ci dara saxuñ ko lu dul entrainement te mu ngi koy defee ni mu waree mi ngi koy defee ni ñu ko bëggee ni ko waa jéngumaan ni bëggee noonu la koy defee te nag ni ñu bëggee combat bi demee noonu la koy defee bu soobee yàlla bu ànd ak suñu kàttanu suñu borom yàlla may ndam ci kaw euh, Mamor bu fas ndam lu sedd guy ñi woowaat nag population daaru ci bu yëpp fàttewu ma su ma limee damay juum waa Kër ma saar tamit écurie jëf soog a nekk fàttewu ma waa mouvement bay suñu waar combat bi seen combat la combat bi seen combat la su ma limee nag damay juum kon yéen laa ko sas combat seen combat la ngeen xam ne euh, bukki moom bu dabee bu bu yabee bu yabee ndóbin moom sa doxin bala te Mamor du nu mës a yab te duñu yab gis ngeen ni lay demee ci jàmmaarloo maa ngi leen di bu baax baax sama karamaa di ñaawal yi ah di ki nga xamante ni mooy Paul bu daal ndax yombalal nañu liggéey bi maam moo tamit mm-hmm. naka noonu di leen sant bu baax a baax di leen wax ne làmb nii la ndax làmb yemul ci ñaari mbëri yemul ci promoteur bi yemul ci ñi nga xamante ni ñooy waa CNG mm-hmm. ñi nga xamante ni dañuy ànd ak mbëri ci la ñu bokk dañuy am envie wax liñ bëgg a wax wala wax li ñuy yabee seen mbër moo tax ñu leen andi jàmmaarloo bi woo leen ñi nga xamante ni ñooy ànd ak mbër yi di si sant ki nga xamante ni tamit maa ngi koy nuyu bu baax a baax muy Aziz borom Colobane lu mu jaayul baaxul di nga ñëw <laughs> Aziz borom Colobane maa ngi bu baax a baax lu doo sañse maa ngi bu baax a baax mooy am Aziz Fashion euh, taalibe Cheikh bu mag bi taalibe Cheikh bu mag bi maa ngi la nuyu bu baax a baax di gërëm ñëpp di gërëm ki nga xamante ni mooy Anta di ko wax happy birthday to you yow sama rakk nga du ma la cof benn yoon. Mhm. kàddu yu mujj. waaw dama fàtte woon rek mën naa ne sax moom laa waroon a njëkkee sax mu di mu di mu di équipe bu CNG sortant bi. Mhm. ñu ngi leen di jaajëfal ñoom ak euh, président Alioune Sarr. moom ak équipe am yëpp ñu ngi leen di jaajëfal ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni def nañ ko ci làmb am na fu ñu fekkoon làmb te am na tamit fu ñu ko yóbbu loolu ku ne teg bëtam ñu ngi leen di jaajëfal ci liggéey bu am solo boobu noonu di di di di encourager tamit équipe bu bees bi ànd ak Bira Sène Euh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax di ko ñaanal tamit moom it yan bi oyof oyof ci kawam ba fi mu fekk làmb nii bëgg nañ mu yóbbu ko fu ko fu ko fu ko fu kawe loolu nag travail d'équipe la travail à la kon mm, yal na ko yàlla kàttanal yombalal liggéey bi ba nga xamante ni dina ko defee ni mu waree incha allah. incha allah gis